dëkkaale jar na faale. lii de jar na faale. dëkkaale jar na faale. kenn du ko def non non. ma lu ma soob ci kër gi. moo ba du lu la soob ci kër gi. laaj ma lu ma soob ci kër gi. moo ba du lu la soob ci kër gi. ma numbe dafa réew. ñànku du sang. hey lu ko waral. sa neex mi ci kër gi du wax ak tafa. loolu doy na waa. varié ba sax.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 et wwwcefas du sénégalcom ou bien wwwe du Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Ali beneen Ali beneen Ali beneen yow ma la sama loxo ma am dof waay yow ah da ngay dox da ngay daanu fi nga ne fi di aywa yaa xaj la waay la xasal la xool sa xasal la ni la waxoon naa la da ngay daal yow dof la ngay tàmm di def xool xibo man xiif naa kay dama ci dama ci dama dama ci sooy mu jox la mbul sooy sooy sooy sooy boulangerie boulangerie la kay yor ana ma ne ko ñànku ne la waaw waaw mais mbulu fanga daga nga jox ko waaye kooku du jaay fanga daga waaye ah fay doom day jéem a jeexal mbooloo. keroog dem naa keroog dem naa fa di añaa. waaw. Ah, soos la togg ah. waaw mbul sax. duñ ko lekkee kon. ay biscuit lañ ko def. ginnaaw <laughs> la ay biscuit lañ ko waaw waaw waaw waaw. waaw. booyee. booyee. ça va. Ah, la fa sa jaag bi jaag bi. pile. ça va saa fu mu dëkk. saa kaay ko ma ah. yow xamoo ma demee. xamee woo ko. xamee wu ma leen. waaw waaw kii ñun si leen dëkk bi amul problème fii damay suñu kër. ah amoo leen problème lii leen problème la. nga wax ak yow rek te te yére bi laa wax sama yére kaay ma xool ndax ñoo tolloo. gis nga chemise la ñaari chemise gerte waaw soo départ fii nga ñëw fii. ah yére yi ñooy tolloo. waaw xool kaay ma xool yére bi fii. fii nii fii loxo yi loxo yi. fii nii fii loxo bi. Ah, ah, ah, me de quién. daa gees loolu dafa gees dafa mandi doxal doxal doxal doxal doxal doxal tegal tegal bu baax baax soo soo lisee soo lisee da ngay changé xel Sénégal loolu la mel soo soo soo amee xaalis da nga da nga changé doon nañ séddoo nañ séddoo Tamam kabul et. Tamam. Evet. Waaw. lenn dama koo jaay ci yoon. ban yoon. ci yoon bi yoon bi. diggante bi nga xam ne dama koo jaay ci jaay naa jaay naa daf daf li nga nekkee nga jaay. jaay naa lenn ci yoon. jaay naa mosoo koo jaay. bàyyi mënu ma dama dama dama dama koo jaay ci yoon. si si si si la. waaw ñu bokk lu ñuy bokk doo ko teg ci ne la jaay ci yoon. ay sa daf daf lu am na waatal des na beneen ñaari xool waaw waaw jàppati woon. lan mooy loolu. waaw te avance. te te zéro. mooy zéro. loolu yomb na de loolu papa. Arma. papa. Arma. naam naam naam. ah day de moom kontaan ngeen de. ah yëpp liggéey. lan liggéey ba am xaalis bi. ah daa daa daa am koo xamante ne dafa dafa yo benn dafa yoroon benn néeg. waaw néeg bi nag dafa dafa kii quoi doon waay jàng. waaw mu ne nañ nañ nañ déplacé néeg bi. waaw ah. su ñu jël néeg bi yóbbu ko fële. néeg bi ngeen jël yóbbu wala bagage yi ci biir néeg bi. alors ah néeg bi néeg bi. du loolu dañ doon manœuvre dañ doon manœuvre ñu fay ñu journée baax na yéen liggéey da ngeen war a liggéey doogu leen ci kër gi lu wax max max wax du ngeen dugg ngay doog loolu baaxul waaye moom mi dafa ma bëgg a dafa bëgg a teg di lu bare bare lan am diggante bi ma jaay naa liggéey dafa am jaan génnoon foofu maa ngi lay loolu baaxul kenn du lekk loo moom kenn du mi ngi nii ci indi xaalis bi génne xaalis bi génne lépp dafa bàyyi dara eh, bu dugal solo ko bi poche jàmbur ba dafa ndànk soo dugal solo sama bi poche dina la naqal tous yaa ngi tooñ nag yaa ngi tooñ voilà papa sax ñëw na <laughs> alhamdulilah rabbil alamin papa sax ñëw na tey nag moom sa doom yi moom kontaan loo nan ma xëy nan ba wàcc xaalis dañ yor nii dama demoon maye baro ci tali bi fii eh. waaw walla looy kiit fu ngeen jëlee lii lépp ci xaalis. dañoo manœuvre ji woon dañoo liggéey woon tey. fu ngeen manœuvre. fii ci koñ bi rek ci ak. ah Sénégal fayul les manœuvres de xanaa. ah xam lan la liggéey bi lan la. lan la woon. Ah, ah, waaw liggéey bi lan la. ba benn néeg lañ doon lañ doon defaraat néeg bi dafa amaale ay jaam. waaw ay set jaam. man ma lay ma lay ma lay ma lay di fi. Alaaj Moustapha jàpp ñaari. Ah, Alaaj Moustapha waaw. kaamil. ñii maa leen tuur. xam naa leen. Mhm. te lii ñu yor ci xaalis mat na ñeenti junni wala mu jóge. Ah, man dañ ni ma danoo demoon manœuvre xaw ma fan. manœuvre ay jaan. ah waa njàng moom wérul bu waxee duñ ko dégg xanaa keneen ki waxee mu tane. man numbe ah, amul jaay ah, amul jaay man numbe kaay xaaral xaaral xaaral. ah man numbe lu ngeen doon jëlee xaalis. dañoo demoon di manœuvre. waaw moom jaan yi mu wax noonu amul wan naa ko sax na dindi jaan jaan na jaan yi dindi na jaan yi léegi lu Ah, kii sa saako ay saako la peel lan doon yenu ah, di ko aj ci kaw terrasse di wàcc di yenu di aj di wàcc ñàkk nga sax dëgg ñu mm. ah, di ji xale sàcc waaw waaw waaw waaw waaw jërëjëf waaw eh, yow ne lan ngeen doon kii def lan ngeen def na faale de jar na faale dëkkaale jar na faale walaay jar na faale dëkkaale def noonu kaale jar na faale laaj ma soof ci kër gi moo ba du la soof ci kër gi laaj leen ma ma soof ci kër gi moo ba du la soof ci kër gi ma dafa reew ñànku du sangu lu ko waral sa neex mi ci kër gi du wax ak tafa loolu doy na waa varié ba sax daa mujjee ragal fii ci 5 TV fii rek lay xewe abonné leen dëkkaale jar na faale idée jar na faale dëkkaale jar na faale dëkkaale kenn